seen oto pant moo leen teree egsi seen représentante Moch di Siranding Baldé moom la ñuy jox kàddu gi pour mu sànni kàddu au de Médina Yoro Fula loolu moo tax seen chef gisuñu ko woon kon dañ koy jox kàddu gi mu wax à leur nom. asalaamaaleykum wa rahmatullah population naa leen waa Médina Yoro Fula nuyu nañ leen. Euh, alhamdulilah tey li ñu gis nii dal na xel mais na leen leer ni lu ëpp lii mu ngi Medina Yoro Fula di xaar euh, pros monsieur Ousmane Sonko ñu ngi koy xaar bu jaar ci Medina Yoro Fula pour bu dooleel ñu dooleel suñuy candidat boo gisee suñu candidat yi ñu ne dañoo pàcc ci yoon te xam nañ ni Medina Yoro Fula est enclavé te yoon bu baax amu fa donc képp koo xamante ne ni bëgg na Medina Yoro nañu votel Pastef massivement le 17 incha allah président Ousmane yaag ndaw si <laughs> léegi nag kii am na loo xam ne dégg ngeen ko ba tàj et depuis le 14 octobre yéen a koy dégg muy ne mbébétu gëbëgu ki nga xam ne moom mooy le président de PASTEF notre tête de liste nationale Ousmane Sonko loolu bëgg-bëggam la waaye depuis presque bi ma fi egsee dafa am benn kilifa peintre boo xam ne li mu ma ñaan boobu ba tey su ko ko mayul dina doy waar ci man dafa def benn pébu rafet boo xam ne cadeau la boo xam ne daf la ko bëgg a présenter mu jox la ko ñu soog laa jox mën pare na rek mën na egsi présenté ko balaa ñoo continuer li nga xamante ne moom mooy programme parce que bu ñu dépassé rek voilà mi ngi noonu di ñëw tête de liste voilà mën na ñëw mu présenter tableau bi à notre tête de liste nationale c'est un peintre moom moo ko liggéey wan ko public bi mu ànd ceeg ki nga xam ne mooy notre tête de liste nationale voici le tableau ñu koy laaj mooy liggéey bi nga xamante ni peintre bi def na ko muy une photo de notre tête de liste nationale le président Ousmane Sonko. président gars yi nee nañ projet bi dina àgg te dara du ko teree àgg kon ce que je disais tout à l'heure avant ñoo jox kàddu gi le président Ousmane Sonko xam ngeen ne bi mu présenté référentiel bi le 14 octobre 2024 fële te centre de conférence Abdou Diouf daf cee teg benn mbir daal di wax ne meeting yi neex na trop waaye fu mu dem parce que bu ngeen dégloo seen kilifa yi nga xamante ne ñoo wax les têtes de votre ministre ñëpp li ñu wax mooy dañoo joxe seeni doléance sur la région de Kolda sur les départements de Vélingara les départements de Médina Yoro Foulah et les départements de Kolda kon wax ngeen seeni doléance ñoom ñu am loo xamante ne liggéey nañu ko muy référentiel boo xamante ne dafa jëm 2050 bu leen ci dégg nag ni Sénégal 2050 lay defaru déedéet par pàcc la d'ici cinq ans am na fu ñu war a jëm boobooy plan nal am na fu ñu war a jëm d'ici dix ans loolu moo tuddu master plan bu ñu ci jógee nag ci la ñuy jëm deux mille cinquante ngir bëgg a egg fenn foo xamante ne jàpp leen ne bu doon dañoo ne immeuble vingt étages la deux mille cinquante la ñuy teg vingtième étage bi waaye en deux mille vingt neuf mën nañoo egg sept étages. 2034 mën nañoo egg 15 étages 2050 ñu ne eggal nañ li nga xamante ne moom moo di vingtième étage bi loolu ngeen di dégg ci horizon 2050 kon képp ku leen wax ne dañ leen a wax ne xaar leen ba 2050 Sénégal mën a dem xam leen ne waxul dëgg kon loolu mbir la moo xamante ne dafay jaadu ngeen xam ko ci kaw loolu dañ koy jox kàddu gi mu wax Kolda ci pôle sud bi mu bokk muy la Casamance lan moo ciy rôlu Kolda lan la ñuy xaar ci yéen la jeunesse de Kolda lan la ñuy xaar ci yéen ci li nga xamante ne moom mooy seen capital humain mais surtout seen i ressources mais surtout seen koom naka lañ ko war a construire ba yéen ndawu Kolda dootu leen obligé à chaque fois dem Dakar wala def émigration ngir mën a développé wu. parce que gëm nañu ne à travers vous et à travers ce référentiel Kolda mën na baax Kolda mën na développé wu kon ñuy jox jox ko la tête de liste nationale le président Ousmane Sonko.